réforme hospitalière bi bu mu ñëwee euh, ñu commencer par les hôpitaux de niveau 3 mooy hôpitaux yi nga xam ne yëpp université ma nga fa woon ñu def leen des hôpitaux de niveau 3 tous les hôpitaux régionaux chaque région en avait sauf les régions yi Abdoulaye Wade créé euh, par la suite amoon na un hôpital régional ñu ne hôpitaux régionaux yi dañ nekk hôpitaux de niveau T mais lan mooy différence bi hôpital de niveau trois dañu ni président du conseil d'administration état bi muy chercher un perso ah, enfin un un personnage qualifié une personnalité qualifiée mu nekk PCA bi mais demal ma Adama Fall lan mooy perso personne personne qualifiée. bu nekk PCA. te les mêmes PC PCA hôpitaux yi ngay gis yëpp récemment lañ leen commencé leen ñamal cinq cent mille ku nekk alors que PCA banque ñeme nga ko jox cinq cent mille wala PCA feneen tous les autres PCA non pas n'ont pas moins de cinq millions. le PCA d'un hôpital n'a rien même carburant dañ ko koy wax maa ngi koy wax fii télévision dañ ko koy may est-ce que loolu jaadu na pour des hôpitaux qui gèrent des milliards nga ñëw si directeur d'hôpital bi si est un fonctionnaire dañ ko ne dama waxtaan ak conseil d'administration ministère du ñu la yokkal ci sa salaire bu dee non fonctionnaire ñoom ñooy waxtaan jox la sa salaire si ça le directeur d'hôpital or il y a un décret directeur lii la war a am directeur général chef d' euh, directeur. directeur national directeur la war am. c' pas moins de 5 millions plus deux avantages. Hmm. le directeur n'a rien et puis on lui demande aussi de présenter. Euh, disons ah tax directeur hôpitaux yi. non ñoom ñëpp dem politique mais di présenter sa et puis ah. da ngay da ngay déclarer ce patrimoine alors que tu n'as absolument ça dépasse plus d'un million c'est la loi qui dit. vous rendez loolu tax ah, voilà yëpp di politique. voilà mi ngi aussi boo demee dafay nekk médecin di liggéey parce que tu as bac plus 7 bac plus 12 et cetera donc xalaatuñu médecin di nekk directeur d'hôpital mais ici hmm. dans nos hôpitaux 42 et quelques hôpitaux les administratifs moo ñu sax 6 et 7 tous c'est les médecins or on a besoin d'eux pour les soins hmm. Hmm. mais ça pose problème aussi on a une pléthore de gestionnaires ah un déficit de de de de médecins léegi les médecins ils gèrent donc les les les gestionnaires ils sont en train de tourner les pouces donc hôpital lan la faire en sorte que c'est un hôtel médicalisé faire en sorte que les fonctions d'hôtel soient là pour que les médecins puissent exercer leur art avec tout ce personnel mais loolu médecin la ngay jàng bac plus 7 bac plus 12 mu nga dee wëlbatiku wut benn master en 5 ans ñëw toog maintenant ñun on a dit joxal jox leen médecin bi 5 millions de salaire ou 10 millions de salaire ce n'est pas un problème parce qu'il mérite plus que ça il mais aussi na nekk ci place am foofu mu bàyyi place yi yi Mhm. parce que li nga jàng en dix huit mois en neuf mois bokk la li nga jàng en douze ans. Mhm. c'est ça la vérité mais c'est des propositions mais si on ne nous pas dans cette affaire là li ñu mën lu ñu ñu def ay propositions mais mënuñu toog suñu place ndox place su keneen.